yéen ci xibaar bi tey alxames juróomi fan ci mois de mai 2022 il est 11 h ci Thiès ñu dikk yéen ci xibaar bi leen lu aju ci mbirum yoon Gabriel Kane ak Souleymane Cissé Souleymane Cissé nag xam ngeen ne dafa yóbbu woon Gabriel Kane nekk activiste féministe bi nga xam ne eh, dañ koy faral dégg lu bëri ci coowul Adji Sarr Ousmane Sonko moom Gabriel Kane mii nag yoon daal dina koy daan ñetti weer yi kaso yoo xam ne du ko tëdd waaye amande ko ñaari million ci sunu ay koppar li ko waral nag moom koy utiliser virginité yu xale yi jigéen ngir def ci wàllum mystique maanaam daal ah, di ci def ay liggéeyam kàddu yooyu nag daal di ñaawoon lool Souleymane Cissé daal di koy ñaawlu porté ko plainte yoon daal ne daan kii di Gabriel Kane ne daal loolu mu koy toppee dara amu ci ndax amul firnde yoo xam ne mën na ko caa indi tëj ko ñetti weeri kaso yu du tëdd ñaari at wala ñaari millions yoo xam ne eh, daf koy fay ci sunay koppar donte nag kii di Souleymane Cissé doon demandé sax ba juróom fukki millions ci sunay koppar kon seenum atte ñoom ñaar foofu la mujj la Gabriel Kane wax mënu koo layal maam daal ñu jort ne ay tuuma yu ñaawloon ba tax na loolu mooy liñ ko teg ci ay daan